salaamaaleykum euh, mon frère ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam a priori maa ngi leen di fay bu baax a baax encore maa ngi tudd Omar Ba euh, dëkk Kébémer actuellement maa ngi à la faculté des droits. alors euh, Omar le 7 février 1986 lan la lay fàttali. voilà boobu buñ ko placé ci cadre historique mën nañu wax ne c'est le décès d'un homme qui est qui était qui est honorable à qui toujours encore nos larmes vraiment sur le resteront sur nos yeux en l'occurrence le grand Cheikh ante Diop. sérieusement c'est un euh, voilà un homme euh, xamante si il a porté vraiment le lourd fardeau pour le meilleur et aussi la beauté intellectuelle de l'Afrique. Il s'est encore donné corps et âme vraiment pour le meilleur et encore l'avancée euh, de, euh, de relever même des défis africains. Vraiment, le grand chef, on le rend hommage et toujours vraiment, c'est un qui s'implante au fond et plus profond même de notre cœur. li tax mënuñu xam kan mooy Cheikh Anta Diop am na si ñoo xamante si ñëw nañ mais di négliger nañ documentation a priori entre temps encore ñëw nañ ci fac bi mais dañoo ñëw uniquement pour jàng wàcc affaire yooyu noonu mais pour nga xam kan mooy Cheikh Anta Diop voilà il faut nga génn c' par rapport maintenant à l' étranger c' est à dire traverser des frontières mais cette fois par ouvrage par œuvre par visite même des œuvres qu'il avait fixées envers les Blancs et encore ses archives pour pouvoir maintenant connaître. wala c'est le malheur et c'est le défi vraiment général que les qui aussi les mouvements syndicaux même au sein de cette classe universitaire portent la lutte pour vraiment l'insertion e la mise en place vraiment euh, de, de l'étude des œuvres et ouvrages même de, du grand Cheikh Cheikh Anta Diop. mu ngi may fàttali décès Cheikh Anta Diop 7 février 86 mu nekk date boo xam ne duñ ko mën a fàtte ñun étudiantes yi et mu nekk aussi quelqu'un de bien qui a vraiment fait de grandes choses pour son pays le Sénégal et d'après li ñu jàng ci livre yi euh, moo moo tax moo découvrir le carbon 14 et, et notre université porte son nom ñu profito si kii anniversaire bi rendre ko hommage bu baax a baax ici au Sénégal à Ceytu bon date boobu boo ma ko laajee mu may fàttali deewu nit ku mag nit koo xam ne ku jar a fàttaliku la nit ku def lu rëy ci dëkk bi te ku def lu rëy ñu wax ko de son vrai nom Cheikh Anta Diop. bon Cheikh Anta li ma la mën a wax ci moom bëri na waaye dama koy tënk rek ci yenn doon na nit koo xam ne nii liggéeyal na dëkk am loo xam ne nii tey turam wéy na fi foo dem xam nañu Cheikh Anta ici au Sénégal ndax nit loo koo xam ne nii jànge fi. si tubaab yi nasaraan si la jàngee mais ba mu jàngee ba pare ba am ay lijaasam dafa retourné luy wane ne moom c'est un patriote bëgg na dëkkaam bëgg na Afrique il est retourné au Sénégal ici pour travailler te bi mu fi ñëwee wéyal na liggéeyam ba il a créer benn laboratoire avec son carbone 14 pour pour des datations des des et autres fexe na ba installé ko fii au niveau de l'université il il est un historien. il a écrit beaucoup d'œuvres bind na ay œuvres yu bëri pour parler de l'histoire de l'Afrique pour défendre que Afrique am nañu benn civilisation par rapport au au au blanc war na ne nasaraan si ne Afrique ñoom am nañu seen i réalité Afrique am nañu seen civilisation waaw bu ñu ñëwee si xamee lu Seck Anta Diop nag mooy que ni ñu koy jàngalee suñu école yi dès la primaire daanaka duñ la wax si Anta tu par au collège. ñu wax la tuuti si Cheikh Anta lycée ñu waxaat la ci tuuti mais ni ñu la ko war a jàngalee ñu la ko jàngal par rapport ak li ngay dégg ay Molière ay Voltaire ay Montesquieu Wilberforce ñun ñu lay wax ay yeneen auteurs yoo xam ne nii ce sont ay nasaraan lañ par rapport ak Cheikh Anta mi nga xam ne nii moom sénégalais la il a toujours défendu le Sénégal moom nu ñu koy jàngalee dafa des ci université yi alors que Cheikh Anta Diop war nay doon chapitre sax bu ñu war a mën a établir ne lii chapitre bi Cheikh Anta rek lañ ciy jàngale dans les dans les dans les dans les dans les au niveau du lycée mais loolu moo des moo tax ñu bëri boo leen laajee sax kañ la Cheikh Anta juddu mënuñu la ciy wax lu bëri wala fan la Cheikh Anta dëkk mënuñu la ciy wax lu bëri alors que boo demoon tey France nga laajte fa benn benn comment dirais-je un auteur nga laaj ko tey nga laaj ko guney waaw ay Hugo et autres nga laaj ko guney dañ la wax Hugo wax la sax Hugo papaam ak yaayam la ñu tuddoon. parce que dañu leen koy jàngal seen mais ici au Sénégal c' tout à fait le contraire moo tax suñu grand yooyu noonu suñu nit ñu màgg ñooñu ku mel ni Cheikh Anta gars yi dese koo xam.